Thank you. Euh, démb li ma def metti na ma trop euh, am na loo xam ne ñëpp ma ko waroon def ba mu des yow yow naka lay mën a doone sa borom kër aye ci yow di la fëgg nga lànk ni doomu ubbil mais loolu au de quoi. yow boo demee ne ko mu jox la ko dégg dina la ko jox incha allah. parce que li ma lay wax safu la li ma lay wax safu la. mais nag yow tey loo mel man man la yow man bañalu ma la dara loo joxañ ma dagg kon am na loo xam ne keneen moo ma ko waroon def ba mu des yow démb def nga ma lu ma metti ah loolu dama la koy wax parce que nag tam ussi jabar nga Cobra yow jabar nga ëllëg dañ may laaj nan laa la sàmbe woon kon boo defee erreur damay taxaw ni la def nga erreur yaakaar nga ni man kilifa gu toll ni man war naa man a fanaan ci néegu jibi lu tax may fanaan ci néegu jibi ma fëgg la fëgg nga nga lànk ni dooma ubbil metti na ma nag te bul ma ko defati te boo ma ko defatee nit ñi dinañu dégg je t'aime bien je bien Cobra parce que man man bañalu ma la dara booy dox ak say nawle ku la xool da xoolaat lu ne laa lay may lu ne laa lay may loo joxoñ ma dagg kon am na loo xam ne war nga ma koo jomba def metti na ma nag li nga ma def metti na ma metti na ma trop te bul ma ko defati

tëdd yéen ñu tëdd sama place bi. xam nga xam nga xam nga yo nopp nga ma kenn werantewul ne yow nopp nga ma moom bokku ndax ku wax ak sa boroom kër parce que xol tàng nga jooy xam nga ni nopp nga sa jëkkër yow nopp nga ma waaw waaye loolu bu la dalati rek bu la dalati. man sa waxee yow rek laa xam man xaw ma kenn yow rek laa bëgg ba tey. ay ñuy sànni la rek yun ñuy sànni la rek yun ñuy yun ñuy sànni la rek. xaw ma sax lan ubbi lu ma la nga dem ba pare may jooy. man na ma jaaxal na ma trop. waaw waaw noppil ko defati nag bul ko defati dégg nga. ba dee man lii tayu ma ko nee naa la sangat bu sonn. yow kay moom di moom kay moom ci kàttanu yàlla moom incha allah dinaa la yóbbu ci sëñ Omar Njegen mu sangat la sangat la ñaanal la ndax xam naa ni yii yun ñuy sànni la rek waaw wuy ma jógal ma wuy ma Abra eh xooloo de bilaay jàllu jéeri te bilaay dama doon wax noonu rek bilaay rew ma ko neen waaw jëlal lii te nga noppi wuy ma maa ko maa ko yuuxu bi ma la yuuxu moomin nga moomin nga moomin ba ba nga ma hmm? ci biti xam nga bu ko defati rek ak jàll jéeri moo ji bi gis nga koor gi ko jàpp la yow koor gi jàpp la yow ah eh, dimbali nu may nu jàmm waaw kii waaw Cobra fu mu ne kii nañu dañu dog waaw Djiby Samb li may réer nii lan la ah ah déet yow xanaa wóoro soo ñàkk fayda yi ngay def moom ma xaw a jaax eh yow lay def fi doxal doxal doxal ah doxal yow la ñuy xaar pour dog bi mujj tey ndogu óor yi laa la fëgg danga maa taral danga maa nopp bu xaalis bi baree yow la bu taraaka gi baree ci ma bu ko jox ma maa yow la ñëwal. man de Cobra jaaxal na ma daal Cobra jaaxal na ma rek waaw kon euh, Buya yow di defaroon nga ton démb daa mel ni de ut leen buru rek raay ci man bu leen ma xaar te ngeen dogu ci jàmm dégg nga jibi dégg nga mu yëfi gone yëfi gone rek yëfi gone rek daa wax noonu rek mais xamul sax li mu wax lu mu doon daa wax noonu rek. Oh, waa ji bi sax mi mu may xoolee. Oh, ah waaw nu ah, ah, lu ma lu ma xaar bi kay moo